ay waay féexal sab xol ah original neexal pot te am na gu original 100% pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw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 africaine femme bi am na jàppante plaqué dëbb naax dëbb col. ah laale mais wuy ma gisee liggéey bi ren daama la. bu ragalee mais mais jàngal nga ko yow. waaw xool naa ko fépp. Ah. xeebu xeebu ko ma di ñëw ma di nga sama conseil si sam xel laay ñëwee de. noonu la sam xel laay topp. waaw ah. lii mënu ma jël conseil dama koo xamul. ça veut dire mission professionnelle quoi. waaw ah. waaw. Alboury sama DG yi waaw ki mooy sa kopp. waaw mooy sa kopp. Al. Al naka moral bi. waaw ah, lépp bon. lépp bon na. bon bon nga naan ma bon. Al bon bon mooy bu baax a baax bi. Al yow la réew mi di xaar. waaw maa ngi nii incha allah damay ñëw léegi jox la lu leer nañ. non bii moom waxoo. Al tey moom doo ñu gàcce tey moom waaw xam nga newoon naa dañuy essayer. voilà dañuy essayer mais dañoo bëgg a teg leer ci table bi. bu ma paree ci kii ñu jox ma euh, kii nu mu tudd sax rek. rek rek mais mais dafa am la mën na xew nañ ko xamee noonu. wala wax ji jóg waaw c'est que problème bi mooy lu ne mën na xew yàlla mooy may ndam mais alpha yi tey dafa ñëw pour gagner ndax damaa doon ñetti. jom jàmbaar ak garmi voilà ñett yooyu laa ko laa laa boole te dama ko bëgg a ñëw wane fii te ñett yooyu mënu ma ko wane muy essai. mais la mën a ngay def musculation te bëri xeexe ko wala xeex la ñuy def musculation. non musculation dañuy échauffé wu rek. Oh, dooro dooro dooro. ah Alba sa énergie doo ko jeexal. eh. alhamdulilah woon nii de ba ngay bëree. Ah, waaw ana buusita. ah ala ala buuda seen mbir yàlla ki des ana bu ah ci biir daam escalier eh, ah ah ah, ah. bu ci des. bu. bu ci des de. waaw changement si des de. ah sama xarit. allahu akbar. laay walaay. saa yi de. ah. ah vidéo fële koñ ba. mën na bu bu yaay borom dëkk bi léegi. mais bii ba ba léegi yéen yow sa egg niveau professionnel. ankay. garaaw garaaw bu mu ngi noonu bu ci xare nga jëm ci xare. ci xare nga jëm. xam nga ne man man man damaa aay si nit weex. da nga aay. xam nga si nit weex. ah jeunesse bi daal nee na bi mooy dernier chance. non jeunesse waxuñu loolu. <laughs> jeunesse bi nee nañ ma buur ki ngay bëree nit ku weex la waaw bu baax bu baaxee ko ok baax na baax na. Lamine yow xam nga loolu. mu demee la sax. problème mooy. ne yow. da am sens su tey boo jógee ci combat bi am rëg am rëg-rëg mais rëg-rëg rëg-rëg rëg-rëg de naka de rëg-rëg buuse mu naaw. wallaay ah. dafa dóor buuse mu naaw. mais waaye buuse ngay wax du ma comédien man ma yow yow king boxing yow yow yow man king boxing dinaa si dinaa ñëw di si def affaire affaire comédie. ah daaw ko def affaire jàmbaar la. bii bu jeexee waxal bës. ma jox rëg ma jox ma ñëw wane sama bopp. man instant yii nekkatuma fii di bëreeg ay xool. inna kon de so sonkotin. sonkotin maa koy indi. bu mu jox la. Sonko teen am na problème de. non am na problème yërëbaay yow la bi nu mu demee la rek. ak Serigne waaw mais bu forme bi forme bi gëj naa ko gis yow. forme bi gëj naa ko gis ci moom. bu Côte d'Ivoire nekkoo moom ñu nelaw. ah. ma bàyyi ba. ah. ko ci mbay baaw la. sa tët l'international. yow yaa ko yor yaa ko yor. Mbaye naka mu. ah. ménagère la mu ngi ñëw. naka la moom ménagère bi. naka moom ak ménagère ba. lan la moom ménagère bi sama. waaw laay. ménagère baa ngi suuf. instant bi moom looy xalaat. waaw dafa am nu mu demee sax. baax na waaw maa lay wax. cëm. xaritu xale jigéen yi. waaw maa ngi fii. est ce que xam nga ne jeunesse bi ñëpp man lañuy seetaan si. xaritu xale jigéen yi pour xamal la lool. ah bi ngeen demoon ci Alboury moom lañ jox buur kon buur léegi yaa ëpp Alboury. ah léegi yow yaa ëpp Alboury. yaa ëpp Alboury bokk. ah bokkuñu sax. kon war ngeen a xeex de. ah yàgg Albouri war ngeen a xeex. non waaye non sama niveau dépassé na Albouri waaye Lamine tamit. rëg rëg rëg. rek daa teg bët. c'est que dama ko seetaan moo poussé rëg rëg ndekete amul garde de te dama gis ay faay. ci moom rek dama gis moo buuse seen xeex mu def ay faa yoo xam ne bu doon man remise naa ko bi jeex na la rek. faa yi ngi ci loxo yi Serigne Bamba faa yaa ci kaw rek suuf yu doy waar. ci kaw rek suuf. maanaam dafa dajawul ak xeexkat rëgg-rëgg démb dajawul ak ku mel ni Bou Siteu jàmbaar koo xam te ne nii dafa pratiqué xeex dem dem dem Abidjan vingt cinq jours laa def Abidjan la bi yow mos naa génn Sénégal préparé léegi dañuy waxtaane ba xam mos na maa gis ma génn Sénégal ñëw préparé. Dubaay da nga demoon pour vacances. vacances Dubaay moom vacances laa ma def. waaw mais damaa demoon Abidjan David jàpp ma jàngal ma xeex vingt cinq jours chaque jour cinq séances. yow it xaaral ba ma wàcc mu dugg si ba pare nga xool. Oh. premier round bi rek wàccoon naa ak Sonko dit yow. ak Serigne Bamba premier round bi. yow Lamine nu mu demee rek nii sax. yow doo naaw yow di la door ngay naaw. naaw. waaye yow. ay nga naaw sa tànk yi banku waala naawaale ci air bi xam nga man la du ma ñooñu waaye. maay dóoraata waaye man kenn du ma dóor may naaw. te te te dóor yooyu du dóoru dara sax nii loo nga xam te ni man tubaab bi dafa maa jàngal xeexu xeex boobu noonu comme boobu noonu bii man yooyu du ma naawloo la man yooyu du ma naawloo yow lan moo lay naawloo ah mën a naawloo si si xeex waaw non gisuma lu ma mën a naawloo ay naaw maanaam man musuma gis sax nit ku naaw maanaam damaa gëj a gis sax dóor nga naaw. Hmm. xam nga yooyu yaa ngaa dégg nit di ko naa la dóor ba nga naaw. waaw mais Sonkotin xaar bay wàcc si suuf Sonkotin maa ko suut Lamine. waaw keroog démb lañ dem peese. ay sax ma ñaata kilo laa ko ëppee. yow te ba may fii nii 69 kilos laa woon. waaw démb ba ñuy peese 74 74 kilos. waaw te Sonkotin gis nga mu yéegee. 65 62. 62. 62 kilos yaa ko bi 12. moo tax nag fu ma ko dóor mu yëpp. kon douze coups fa mu sama ko. man Serigne Touba Mbacke. sa manager moo la yor ci lamb yor la MMA. moo ma yor lépp. waaye yaa gore. waaye nag am na combat de Zal. problème mooy Sonko am am baa moo tax ñu bàyyi suñu nelaw ñëw fii. Sonko Tine kenn xamul lu mu mënee. la ma wax Albouri rek kenn xamul sa adversaire lu mu mënee. ni mu demee la rek Sonko Tine fekk naa ko ba yàlla xam naa. yow yaa yor Albouri su ma juum. waaw eh, yaa ëpp yëpp liggéey. kon

kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw salaam tout le monde ñun équipe nationale kickboxing bu Sénégal ñu ngi leen di jox rendez-vous le 5 le 6 le 7 juillet fii si place de souvenir festival Eric Favre sport santé international